Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf li yéene kay xëyee tey réew mi quotidien xëy ak bilan bi nga xamante ne kon moom la nguurub Macky Sall daal di def ci réew mi li ñu bàyyil Bassirou Diomaye fa ak ñi mu àndal nguur gi fas yéene na becc lépp ci kanamu askan wi yéene kay groupe réew mi network bi di xam ne ni kon gouvernement bi ni ki ëllëg ci alxames gi daañu sekk ndaje ak taskatu xibaar yi ngir daal di wasaare li nga xamante ne moom la ñu jëlee ci mission d'audit yi nga xamante ne amal nañ ko ci secteur yëpp bànqaas yëpp ministère yëpp ba ci ay direction bu ñu ca noppee nag la ñuy daal di présenté li nga xamante ne moo jëm ci projet bi juróom-ñaari fan ci weeru octobre bi ñu dëgmal noonee daal la ko nguur gi fas yéene doxale bu ñu sukkandekoo ci Vox Populi muy xam ne ni kon état des lieux ci tolluwaayub Sénégal anam yi nga xamante ne moom la ñu fekkee réew mi loole la nguur gi fas yéene fësal kon ni ki ëllëg bu ci noppee nag mu daal di wax njeexital ya laataa ñuy xool naka la ñuy jubbante yëf yi lu ñu ko fas yéene jubbante nag diggante 2025 ba 2029 muy stratégie nationale de développement bi nga xamante ne l'observateur xëy na ci tey wax ci pexe yi nga xamante ne kon projet bi noon la ko bëgg a tëralee mu aju nag ci ñeenti ponk yi nga xamante ne dafay sopparñaat koom-koomu réewu Sénégal stratégie bu bees boobee ñeel wàllu développement bu Sénégal enquête yéenekaay gis ni nguur gu bees gi taxaw nañu tembe nag ngir daal di soppi doxalin wi doxalinu parti politique yi ak coalition yi jamono ji moo soxal yéenekaay bi di xam ne ni kon lu jëm yi lool ku ci nekk di wane sa bopp dina tamit say pexe bokk na ci APR ca diwaanub Mbuur nga xamante ne donte ñàkk na ay kàngam waaye teewul ñu ngay liggéey ngir dëggalaat seen bopp ca gox ba noone tamit la ko Mansour Faye fas yéene def ca diwaanub ndarge ca ci Ndakaaru moom nee ñu Amadou Ba ma ngay piis ay maire ak i conseil départementaux ba ci sax yenn ci ay parti de gauche moom Amadou Ba ak i alléewam Vox Populi di ñu xamal ni kon samp nañu seen coalition jàmm ak njëriñ lañu ko daal di duppee kii di Aminata Mbengue Ndiaye di secrétaire général bu parti socialiste moo fësal bi la tour ni ki démb Barthélémy Diaz ak Sonko bi lay moom mënuta ñàkk ci élection législative yu ñu dëgmal Walf Quotidien moo ni xamal ni ki tey ji Le Quotidien yéene kay mel ni ku koy dëggal nekkoon moom meerum Ndakaaru Barthélémy Diaz ci les élections dafa fas yéene natt boppam ci kanamu ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ci bile combat nag Ousmane Sonko yaakaarul kenn ku dul boppam yor-yor bi di ñu xamal ni tey la njiital a dogu ngir ber langu nekk nag ab dogal bi nga xamante ne fu wër la ko teg bu ñu sukkandekoo ci yenekaay bi dénk na ci sax kàddu professeur Moussa Diaw xam-xamam màcc ci wàllu politique muy xamle ci biir yéenekaay bi ni Pastef moom cundung war naa mën a am dara ci kanamu opposition bi nga xamante ne dañoo xaajaloo Sénégal yëpp booloo di jooy faatuk kii di Amadou Maktar Mbow ni ki démb lu soleil yéenekaay gis ni ab guy dëgg moo daal di tëdd ni ki démb diiru dundam yépp moom Amadou Maktar Mbow daf ko liggéey ngir identité africaine ci biir yéenekaay bu aan bi Bassirou Diomaye Faye daal di koy delloo njukkal bu baax a baax ca diwaanub New York ga mu nekk lu mooy njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay réew mi quotidien di ñu xamal ni njiitu réew ma woon Macky Sall premier ministre Ousmane Sonko ak i kàngam ba ci sax biti réew ñëpp daal di delloo njukkal ki nga xamante ne moo fi nekkoon secretaire général bu UNESCO le quotidien yéeni kaay gis ni faatuk Amadou Maktar Mbow mi làkkoon téeméeri at ak ñett lu métti la waaye teewul li mu def moom kenn du ko fàtte ba faw Sud Quotidien tamit noonee la gisee ndax nee na xolub askan wi ci laas quotidien dikk nañu ci li nga xamante ne moom la ñu jàpp ni mooy téeméeri at yu jëwriñ daa di liggéey ci kaw suuf ñeel rawatina li ñu duppee humanisme lii xewoon ci HLM muy agression bi nga xamante ne ay ndaw yi waroon ay moto ñoo ko def libération di ñu xamal tey ni police mujj naa teg loxo yooyu la samba boy nga xamante ne ñenn ci ñoom ñu bëri dañoo dawoon làkku ca diwaanub Sédhiou bokk na ci du Diop ñu gën koo xam ci papa bu ndaw Seydina Mouhamed Gueye ñu koy wooye Petit Mouha ba ci sax receleur bi di Pape Gorgui Faye ñoom ñoom polis teg na leen loxo ñu teg loolee wax ci wàllu tàggat yaram ak réew mi sport mi dikk ci gaañu gaañu bi yees bi nga xamante ne Youssouf Sabaly daal dina koy am ak Betis Séville yéene kaay bi di xam ne ni kon doomu sénégalais bi nag dina toggati ay bis te du ko jongante mbay Niang mii dem jongante ca diwaanub Maroc record yéene kaay dikkaat na ci jaar-jaaram boobu ak léegi yéene kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni kon donte bëri na li nga xamante ne wane na ko waaye li mu am tamit ni ay gàkk-gàkk na li mu yàq ci carrière am bile jëf Sénélec